Serigne Fallou nuurun ala nuuri mi nuuri rino wiru naa Galas Mbàkke mama Buso ko jur mooy Jaaratullaay nuurun mbokk jullit yeeg mbokku taalibe gannaaw bu ñu leen nuyoo di leen jaajëfal waa kër Serigne Fall ñoo leen di xamal seen entreprise bu mag bi di yëngu ci lépp luy wàllu carrelage équipe bu dynamique am lool yar ak teggin ci li ñuy def am ci nag seen certificat de travail depuis ba ñu jàngee seen métier mi ñëw fii ci réew mi di doomu réew mi nekk ak réew mi ak waa kër Serigne Fallou Dieng et frère jaaxle jeex na takk yow mi bëgg ñu tegal la postérieur 60 60 wala postérieur 40 40 ma postérieur 25 40 wala 25 60 pat vers sax dañ koy teg yow mi bëgg a am sa décoration yu garaaw yi ngay gis ci réewu Mohamed cinq nee naa la décoration yu amul fenn waa kër Serigne Fallou Dieng et frère taxaw nañ temb di leen jàppale ci seen ay bâtiment waaw yii xeeti karo yu mucc ay taaru lool fii rek la waa kër Serigne Fallou Dieng et mën lool li ñuy def xam ko lool yow mi bëgg tabax sa jàkk wala sa jumaa mbaa nga tabax sa kër mu mucc ayib lool sa jaaxle jeex na tàkk décoration yi ngay gis Europe mbaa nga koy gis Asie mu taar lool waa kër Serigne Fallou dikk nañ nekk si biir réew mi di ko defar ànd ci nag ak équipe bu dynamique ci li ñuy def xam lool li ñuy def jàng ko lool yéen askan wi yéen lañ fi nekkal ay ca murit bu mu laal suuf ngeen mën a contacter ak ñoom ci seen numéro yii 76 397 22 79 76 397 22 79 mbaa nga jël seen orange